di leen dalal jàmm fii ci seen seen Rafah TV ci seen jotaay bi ngeen baaxoo am muy sawtul xaq baaxoo ci ànd ak seen mbokk Mouhamed Fadel ñu ngi dellu di sunu borom yàlla na sotti ci ci dëkk bi xéewal ak naataange te képp ku ci nar aw ay yàlla na ay wa këpp sa kaw mbokk yi ñu dellu seeti waxtaan waxtaan woo xam ne damay wax ni woo spécial la ndax day mel ni ci benn jëmm lañ ko bëgg a waxtaane waaye daanaka ci Sénégal gépp kenn ku ci ne war nga cee mën a gis sa bopp balaa booba damay wax ni gis nga dafa am benn waxkat bu wax bu wax ju am solo benn waxkat dafa wax ne wépp askan woo xam ne ña nga xam ni ñu ñàkk solo lañ ñu ñàkk fit ñu ñàkk am ngëm-ngëm ñoo yor ngànnaay ya askan woowa ñoo yor doole ja ñoo yor ngànnaay la woowule askan askan wu dul jëm ca kanam la ba mukk maanaam askan woo xam ne ci ginnaaw rek lay des wépp askan woo xam ne ñoo yor ngànnaay ya ñooy ña ca gën a ñàkk solo ci fit ñi ca gën a ñàkk solo ci xam-xam ñi ca gën a ñàkk solo ci mbaax woowule askan moom fitna du fa jóg nañ ko bàyyi xel bu baax a baax li tax ma jiital lii mooy mbokk yi Sénégal dafa mel ni fi mu ne mbir yi dafa xaw a jaxasoo ndax bu ñu demee ba toll ci réew mi mënatuñoo àtte ñaari nit sigge am fit jàkkaarloo ki tooñ ne ko yaa tooñ ki ñu tooñ ñu jàppale ko ba mu jot ci ay àqam bu fekkee nga xam ni loolu mënatuñ ko nañu xam ni réew mi tiit jot na ci waaye am na lu ñuy yot loo xam ne bis bu yegsee ci ñoom du neex kenn ndax Sénégal dëkk la boo xam ne naka jekk ku masaana jàppale nit ku ñuy tooñ la aw askan lañ woo xamee ni naka jekk képp ku ñu néewal doole képp koo xamante si nii dañ lay wax wax ju ñaaw te teguñu ko fenn di la néewal doole di la naqaral di la tuutal askan wi naka jekk askanu Sénégal dañoo mas di jàppale ku mel noonu naka jekk dañoo mas di teg loxo ku mel noonu bu fekkee nga xamee ni dem nañ nag ba jëmmi jamono alal ak parparloo ak ragal ak ñàkk wax dëgg yóbbu leen ci ñu gis ku ñuy néewal doole ñoom ñëpp ñu toog di seetaan am ci ñoo xam ne yemuñ ci toog di seetaan waaye dañuy tàggat seen làmmiñ ci wax ju ñaaw di ko jëmale ca ka ñi tooñ bu boobaa képp ku war a wax war ngaa wax jubbanti bu ko defee sa responsabilité wàcc la sa digganteeg sa borom mbokk yi looloo tax ñuy wax tey ji dañuy waxtaanee ci jëmm ji ñuy wax Ousmane Sonko mbokk yi man jëmm la joo xam ne li tax ñu war ko waxtaanee mooy dafa am lu xew ci moom loo xam ne mësta xew ci benn sénégalais ci li ñu xam ndax jëmm la joo xam ne ñëw na incarné loo xam ne mësuñoo dégg ci ñun ñun génération bi. mësuñoo xam ku ko incarné ci arène politique bi maanaam ci ëtt politique bi xanaa bu fekkee mas nañ ko dégg ci ay Mamadou Diop lañ koy déggee ak ñu mel noonu bu fekkee ci Afrique ñi nga xam ni ñooy woote li muy woote dañ leen di lim ci baaraam waaye li tax moom kaawam kaawam spécial mooy dafa mel ni dafay si biir wala muy jot ay naqar ak maanaam tuutal ak néewal doole goo xam ni man de wax dëgg yàlla musuma gis kuñ koy néewalee doole nii ndax koo xam ni waxut lu dul sama réew nii ñu koy doxalee ànduma ci jëm joo xam ni waxut lu dul réew mi nañ ko tegaat ci yoon jëmm joo xam ni waxut lu dul lii ma gis kat ay preuve yi nii ñi ngi koy doxalee ci réew mi te ak càcc la ñu ne ko doo ko fi waxee lu ne ñu jiiñ ko jiiñ ko ni yow ab rebelle nga yow ab salafiste nga yow ab terroriste nga yow ña nekk ci bitim réew ñoo lay financé pour nga bëgg ñëw déstabiliser réew mi yow nitu na nga yow da ngaa bëgg a taar réew mi ñu ne loo xalaat ne yow nit ko boo xamante ni tey da ngay sàkku ay jigéen da leen di siif loo xalaat ci ay tur yu ñaaw ci ay wax yu ñaaw rek jëlee lañ ne nañ ko ci jëmm ji te waxu dara lu dul ne sama réew kat nii mooy doxee jaaduwul ñii nga xam ne ñooñ la dénk réew mi ni ñu koy doxalee jaaduwul. i donc da laa dégg Ousmane Sonko wax ko ba mu ko waxee daj na ci lu muru dajut ca taal ba waaye mbokk yi loolu man jaaxaluma ndax dafa am benn waay boo xam ne. dafa dem kër xaritam laaj ko ne ko waaye yéen seen ganaar gi fi daan ne di sab anamu xarit bi ne ko suñ ganaar gi de sab yi muy sab suñ dëkkandoo yi nee na loolu da leen a moo tax ñu rendi ko waa ji ne ko naka jekk àddina képp ku fi nekk di yee nit ñi pour ñu yeewu dañ lay rey xoolal àddina ba àddina sosoo ba léegi mboolem koo xamee ni da ngaa ne dangay ngay saw askan mboolem koo xam ne danga ngaa jug ne dangay ngay liggéeyal saw askan ngir ñu yeewu jàkkaarloog réalité yi ba mën a jàkkaarloog moom rey nañ la wala ñu sàkkal la pexe wala ñu yàq sa der jaxase la ak askan wa ba dootoo ca jarati dara mbokk yi lii moo nekk ne dal Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko ku koy suivre. di ko bàyyi xel la commencé boobu ba léegi ba mu commencé ba léegi musu fee saaga nit musu fee tooñ nit musu fee yàq deru nit musu fee tuumaal nit loo xamantis ni dañ naan waru koo wax lépp lu muy wax day nekk loo xam ni ñun ak ñun askan wi suñu yoon a ngi ci mooy alalu réew mi kat ñu ngi bërëb sàngam te diw ak diw ñoo ko fa yóbbu te waruñu ko fa yóbbu kii ngeen dénk seen réew kat ni mu doxalee nangam ak nangam te nangam jooju baaxut lii dong la wax kat ñu bëgg koo tam dëm lii dong la wax kat ñu ne ko doo ko fi waxee lii dong la wax ñu ne ko robel nga ñu ne ko yow baaxoo nit ku yàqu nga te lu ne nag ñu di ko sàkkal ci ay pexe may wax ni nag dafa jot kuy jullit ak ku dul jullit képp koo xamee ni réew mi daf laa ñor kii di Ousmane Sonko war nga ko jàppale li may wax sama responsabilité la man la man la ak sama xalaat man la en tant que sénégalais man la en tant que ki nga xamee ne xam naa ne war naa wax ma wax lu ci waay wax nag après yow la yow yow yow la concerné waaye man li ma xam ba xam ko mooy nguur sii di Ousmane Sonko dees koo war a jàppale dees koo war a teg loxo dees koo war a aar dees koo war a dimbali ndax kat koo xamee ni danaan la yow askan wi kenn ëppalewu la ci réew mi koo xam ni danaan la nii ngay jàngee kat war ngaa mën a jàngee nu ko raw koo xam ni danaan la alalu réew mi war nga cee mën a jot lu ëpp li ngay jot koo xam ne danaan la hôpital yi war naa mën a gën a baax mbokk yi kii ndax jër te jàpp doyut de ci moom laa njëkk a déggee ci samay nopp nit koo xam ni ci moom Ousmane Sonko laa njëkk a déggee ci génération bi mu ne politique jaamu yàlla la ko def liggéeyal gi muy liggéeyal askan wi àjjana la ci yaakaar maanaam jaamu yàlla ci jëm boppam la ko def wuutelewu ko julli ak woor allahu akbar mbokk yi ma ni ñun ñun ñun kay kii lañ doon wër ndax fii senegal li ñu xam mooy ñun dañoo jàpp ne képp koo fal Sénégal fii koo fi fal ministre wala DG dañuy jàpp ne sa liggéeyu nday la ak sa barke baay la seet leen bu baax a baax li mu wax gis nga koo fi fal day jàpp na yaayam a ko liggéey barke baayam la te pourtant déedéet bépp pal boo xamante si nii mbooloo ñoo la ko fal dénk la seen alal boo jàppee ni sa liggéeyu ndey la ak sa barke baay doo fa liggéey dara te yow juum nga te yow woo fal la lool li nga xamee ne dañ la ko fal mbooloo yëkkati jox la ko te gënoo leen gënoo faa jàng ëppoo xam-xam gënoo leen a sell lu dul ne dañoo am ci yow yaakaar kooku dangaa ngaa jàpp ne dangaa war a jàpp ne mbir la mu la sa boroom nattoo nga war cee jaamu yàlla ngir ne ëllëg boo ñëwee dana la laaj nan nga doxalee sa digganteeg ni la nit ñi faloon te mbokk yi Ousmane Sonko nee na lii di ak liggéeyal askan wi ak yee askan wi jaamu yàlla la ko def nee na lépp lu ko ci dal bu dee bakkanam bii moo ci rot tey Sénégal jag te Sénégal nekk ci yoon jaral na ko ko mbokk yi ndax yéen dama leen di laaj ndax mas ngeen dégg wax ji kenn wax ko ci ñuy politique loolu moom ab la boo xam ne dama leen koy laaj ndax mas ngeen dégg ci ñuy politique la dalee ca Senghor ba tey politicien bu leen wax ne maanaam politique bii may def jaamu yàlla laa ko def te bu fekkee jar na sama bakkan bi rot ci ngir Sénégal baax joxe naa ko est-ce que mas ngeen a dégg benn politicien bu leen ko wax du ngeen ko dégg Ousmane Sonko mii nag wax na ko may wax ne Sénégal dafa nekk ci kanamu histoire ci kanamu histoire mooy lan mooy gis nga Afrique ñu mel nii am na leen sàggane leen Afrique amoon na ñu mel ni Ousmane Sonko seen dëkk jaral leen seen bakkan. ñu jàpp ne lii nga xam ne moom la ñuy def ci seen dëkk bu liggéeyu day du barke bàyyi du teraanga waaye lu ñu war a jaamoo yàlla la lu ñu war a doxale ak maandu ci seen digganteek askan wi waaye dañoo toogoon di seetaan ba ñu ñàkk ñooñu kon mbooleem kuy sénégalais yow mi bëgg usmaan Sonko ak yow mi ko bëggul bul xool jëmmi usmaan Sonko ndax jëmmi Ousmane Sonko amul benn njariñ man nii di wax politique bi mu la Ousmane Sonko li mu amal njariñ mooy li muy wax ci ay programme ak li wax ci ay njariñ ak li muy wax te mu jëriñ réew mi lu mu bon bon bon Ousmane Sonko discours yii muy wax am na ñu baree baree baree baree bari ci population bi ñoo xam ni yeena leen ñu nekk ay nit ñu nekk ay bons citoyens Ousmane Sonko xoolal bu baax a baax ñi nga xam ni ñoo ko bëgg bàyyi ko xel gis nga boo gisee juróomi nit. ñoo xam ne topp nañ ko bëgg ko bàyyi ko xel ak di ko défendre juróom-ñeent ñëpp ay boroomi bopp lañ boroomi xel lañ nit lañ ñoo xamee ni ñi ngeeg seeni liggéey ñi ngeeg seen teraanga tey ragaluñ dara ci Ousmane Sonko laa njëkk a gisee man ñi ma xam ci ay sëriñ daara ci ay boroom xam-xam ci ay nit ñoo xam ni seen yoon mësta nekk ci politique waaye li Ousmane Sonko di wax dafa dajeeg seen bopp yu wér yi ñu xam ne lii dëgg la moo tax ñu di ko jàppale kon yéen askan wi bu leen dégg mukk nit ki naan leen bu ngeen génnee ci mbedd yi dem di manifester da di rey seen bopp wala su ngeen fa demee yéen tooñ wala boog su ngeen faatoo jeex na kooku kooku kooku kooku waxam ja jërul déglu képp ku naan leen bu leen génn ci mbedd mi di manifester képp ku naan leen Ousmane Sonko mii boppam a ko tax a jóg wala mu leen di wax ne Ousmane Sonko mii nitu intérêt la wala nitu fitna la xamal ni moom ci jëmm boppam mooy nitu intérêt mooy nitu fitna ndax moom da koy laaj moom lan na liggéey réew mi jël ko moom moom miy wax loolu jël Ousmane Sonko teg. lan la Ousmane Sonko sacrifié ci boppam ak moom lan la sacrifié ci boppam ngir réew mi dara lu dul toog di wax kon nañu yeewu gis nga Ousmane Sonko ñii lii mu ñuy wax ñu gëm ko bis boo xamante si ne demoon na yéeg ba ca nguur ga dal di safaanoo def leneen mboolem ñu ko toppoon gëm ko bëgg ko ñooy njëkk a jub dal ci kawam ndax senegal moo leen ñor Sénégal moo leen ñor kon nañu ràññee bu baax a baax te problème bi gën naa sérieux bi ñuy romandaat naan France mi ngi ciy dugal loxoom maanaam France mi ngi dugal loxoom ci suñu mbiru réew ngir ne lan am na kat benn opposant boo xam ne taxaw na ne man mii kat nii France di doxalee ñun di ñu noggatu di jël suñu alal du ma ci d'accord te bis bu ma toogoon ci réew mi dinaa xoolaat jëm ni euh, la ñu déggoo lépp ñu waxtaanee waat ko mbokk yi nañu yeewu ngir yàlla nañu yeewu ngir yàlla man su ma gisee ndaw loo xamante si ne tey dafa déglu Ousmane Sonko li muy wax ci ay programme li muy wax ci askan wi di leen yee di leen wax ni politiciens yi ñun ak yéen ñoo war a yem ci réew mi gënuñu leen ba pare ñu wëlbatiku di téere di jëm ci kanam ba pare ñu wëlbatiku di ko saaga man dama yaakaar man danga may jaaxal dama naan am sam xel ba pare it man dama yaakaar ni gis nga bu dul woon ak dara mbooloo mi nga xam ni moom la ñu tàggat ci Ousmane Sonko rek ngay gis ñu tàggat ay mbooloo di leen fay ñu nekk ci ay télévision di ci bàyyi Ousmane Sonko ak yaayu Ousmane Sonko ak rakkam ak fan la ñu juddoo loolu dong waroon naa man a tax seen xel tey ñu ne waa waa ji lan moo tax ñu koy diaboliser. ndax kat politiciens yi bari fi waaye kenn defu fi kenn noonu Khalifa Sall la ngi fi Déthié Fall la ngi fi ci politiciens yi Bamba Fall la ngi fi keneen ak keneen astafurlah kooku bëgguma ko tudd keneen ak keneen wala moo tax ñoom ci seen jëmmi bopp lijjantiwu ci kenn baayam ak yaayam waaye ñu dem ba ci Ousmane Sonko moom rek di lijjanti baayam ak yaayam ça veut wax am nañu mu arrangé wul waaye arrangé na askan wi kon damay wax ni gis na Ousmane Sonko mii aar ko ak bëgg ko ak ñu taxawu ko jàppale ko kooku ci jaamu yàlla la bokk waaye kooku ci bëgg réew mi la bokk loolu nag man Njaay maa ko wax man Mouhamed Fadel man la concerné en tant que li ma gis ak li ma xam ak li ma jàngat ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal mbooleem waa réew mi yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na sunu borom def ñëpp ñu am jàmm Ousmane Sonko mii lii nga xamee ni moom la woo ci ndaw ñi ndaw ñu wuyu ko yal na ko yàlla sunu boroom defal gëm gu dëgër ak ndëggu yu sax waaye defal ko tawféex ba bu mu wor ndaw ñi bu mu leen wor de ndax am nañ ci moom yaakaar kon na góorgóorlu ba bu mu leen wor waaye yéen ndaw ñi it bu leen découragé gis nga yaakaar ji ngeen am ci Ousmane Sonko yéen ndaw ñi bis boo xamee ni dem ngeen ba gis Ousmane Sonko mu dem ba réussir la mu leen digoon mu def ko alhamdulilah waaye bu ko defut bu leen découragé wut leen keneen ku mel ni moom ndax senegal ñu baax a ngi fi du jeex bu leen découragé mukk su ngeen defee loolu bis dana ñëw ngeen am ku leen yoral seen réew yorin wu baax te jaar ci yoon ñu ngi jéggalu ñëpp wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah lakum shukran lakum sunu mag ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon wuñ dee